mobilisation bi fils qui fii qui gisuñu commune Bonne Cambérène le record de la mobilisation je suis sûr que le 23 janvier Cameroun da le record du résultat maa ngi remercier il remercie Bouba. madame Yaay Fatou il remercie maa la grande coalition de l'unité une coalition pour a Benno Bokk Yakar Moko mon porté de manière unanime les seuls candidats filles, c'est Cameroun c'est le prochain maire de Cambérène, Doul Patembeng. Mais la même coalition de l'unité portée par le Benno Bokyakar, parce que Benno Bokyakar, mon gobot, mon nez, c'est le candidat à la ville Ablaïdou Diouf le Toudou. bonne coalition de l'unité il faut nous voir leen moyens. coalition de l'unité physique physique si qu'il kilifay Cambérène Nous avons le président Macky Sall ne ko n'importe quel que du Sénégal le bon la de l'année, moins tard ou Cambérène dëkk la boo xamante ne dafa am ay kilifa yu wër moom seen baat ñu ne président bàyyi ñu ñu dajeeg suñu njaboot tànnal la kenn jox la ko leen dellu naa gannaaw nu ngeen def rek noonu la ñu dajee tànn Doun Pathé Mbeng président ne leen yéen waa Cambérène yéen a tànn Doudou Pathé Mbeng mayo Benno Yaakaar mu ngi jox naa ko ko na ko sol kon nag Doudou Pathé Mbeng coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko tabb tabb Abdoulaye Diouf Sarr ville de Dakar kon nag waa Cambérène bulletin bi benn la ñaar bulletin bi moo yor ngërëmu kilifay Cambérène bulletin bii ku dégg ndigal ci Cambérène mom ngay voté bulletin bii li Cambérène ñaan Macky Sall ba mu may leen ko ci bulletin bii lañ koy traduire ma ngi leen di demander wa Cambérène le 23 janvier ngeen dëgëral Cambérène moy jox ko une majorité écrasante te ki xamante ne moo may kilifa yi ne leen tànn leen ku leen neex seen dëkk seen dëkk yaay na ko moom bu siggee xool résultat Cambérène dana a ah, gàcce ngalaama ñi kat liñ doon ñaan jar na ko bon donc ma ne am na lu ma dégg sànq ngeen way ko laa ba ngeen yekk ko ndigal la waye Tupatão, Sacavadão! Tupatão!